tëddi leen tuuti ci taw tay Nabi Vision. gis ngeen Ousmane Sonko àndax nit xam ko moo gën a wóor àndax gis ngeen Ousmane Sonko mii Ousmane Sonko Ousmane Sonko le président du parti Pastef les patriotes laay waxal Sonko dafa bokk ci famille bu rëy ay mbokkam ñu may seetaan. suñuy bàjjen ñu may may déglu suñuy maam ñu ngi may déglu ñëpp a may déglu dëkk ba gis ngeen Ousmane Sonko maamam fa mu sokkee ko fa mu jóge maamam mii di Arfan Basir Sonko fa mu jóge muy jàng sëmbilan seen maam ñu koy woowee sëmbilan gis ngeen kooku bu nawet bi daan dëgër du taw kooku mooy jug ne yàlla ji damaa bëgg nga taw yàlla ji taw te woon du woon jullit du woon chrétien mais yàlla mayoon na ko kooku la taw bi daan taw biir Casamance sax wërngal këpp ba ay kër yu bëri di daanu ndox bi bëri mu génn ne taw bi damaa bëgg nga arrêté taw bi taxaw barki salaatul faatiha ni may wax nii joolaay bëri xam nañ ko arafam Bassirou Sonko mo ñëk tabax école Casamance. nabi Vision. ta anniversaire am le 15 août le texte chaque le 15 août dañuy joggé village ba village dëkk ba dëkk ba France extérieur ñëw di fête anniversaire mamay Ousmane Sonko muy arafam Bassirou Sonko. Ray nak ay jundi nak te yap bi du bouger fa ngeen koy lek fa lay yem. kon barricade bi ngeen barricade woon kër Ousmane Sonko ñuy tëggi bool ngeen ne nawet bi dina yàq nawet bi du taw parce que da ngeen xamul ku Ousmane Sonko soqee ko mais la may wax nii ku weddi demal jànki sama village demal jànki boo yeggee nga laajte fan mooy sëmbi la ñu yóbbu la foofu ñu nettali la histoire parce que man sax xale laa maîtriser wu ma sax histoire bu baax. kon xam ngeen ne tëggu bool bu Ousmane Sonko tëggu bool xéwal lay doon ci sénégalais yépp ngeen ne du taw. tey da ngeen génnee barricade bi ba ngeen ko génnee ba tey yàlla ji mu ngi tuur ay xéwal kon ngeen xam ne lii du hasard lii du neen dama ne woon ma wax nag waaye foog ma wax yéen ñi ma gis nag ngeen di wax fu nekk de gauche à nit ki boo ko xamulee da nga ko naan eh waaye boo leen xamoon kuy Sonko boo leen xamoon fu Ousmane sokke ko di ngeen def nànk te moytu Ousmane Sonko moytu bu am jom waaye nag ñàkk xam moo tax ngeen di def yenn yi surtout yow. Naby Vision. Macky boo xamoon fu Ousmane Sonko sokke ko ngeen ne du taw du taw ngeen wax ngeen ne Ousmane Sonko moo fi génnee ay tëggu mbool kon ren taw bi du taw depuis daaw yéen koy wax yàlla mu ngi leen di rusloo waaye ne gis ngeen nag attum yàlla moo gën attum juge moo gën attum moo gën attum avocat moo gën attum président yàlla subhanahu wa taala il est le seul juge unique juge au monde. yàlla bu ko neexoon mu def leen ay mbóot yéen ñi toog fii di incriminer Sonko di di di di jiñ Sonko di tuumaal Sonko yàlla bu ko neexoon mu def leen ay mbóot yàlla bu ko neexoon mu def leen ay xaj walla ay golo waaye yàlla ci mbaaxam ak ci woyofam ak ci bëgg doomu aadama ak am yërmande ci doomu aadama moo tax yàlla def leen ay nit waaye nag ci biir nit yooyu yàlla dafa am lu mu leen mooñaale mooy mbaame bu yóbboo nag na ngeen xam ne Ousmane sonk taal bu yàlla tàll te puus mu tàkk ñàkk puus mu tàkk yéen nag xamoo leen yeelaa barricade yi ngeen génnee nii na xaw ma loo leen nar ak loo leen fas yéene waaye nag loo leen munti fas yéene yàlla subhaana wa taala moo leen ëpp doole. fii nguuru yàlla kese moo dul jeex mais nguur boo fi gis day jeex Sonko sax bés bu faloo nguuram day jeex alaa kulli àll waaye damay ñëwaat rek si fi Sonko jóge fu mu soqee ko wallaahi boo leen xamoon kan moo jur maamay Ousmane Sonko. Naby Vision. di ngeen maanu ci Sonko yéen Ousmane Sonko boo leen ko xamee boo leen ko gisee nii sax ngeen xam ne lii du nekk Ousmane Soma Sonko amul màkkaaba boo xamante ne benn sëriñ a ko ko ñaanal da koo donn ci ay waajuram da koo donn ci maamam fii lu fi sëriñ ñaanal Ousmane Sonko rek fekk nga ko fi man maa ko wax. lu fi sëriñ mënti ñaanal Ousmane Sonko fekk nga ko fi dama ne gàcc ngaalaama li joolaay di naan piyo piyo pañ anosan pu mañ ay la ko mi ay yàgg-yàgg ku nekk di nga xam kan mooy kan dama ne nit ki boo xamulee ni ko ndeyam bootee nga maanu ci moom bu fekkee tëggum bool mooy tax taw bi du taw kon tey yàlla àtte na kon tey yàlla àtte na te bu ñu waree tëggaati bool danañ ko tëgg tëgg tëgg ba mu riir bu ñu waree tëggaat ay bol du yee nañu koy tere danañ ko tegg Ousmane Sonko nitu ndox la Ousmane Sonko ci ndox lu joggé ma waajuram bu goor joggé ci ndox mamam bu goor bi jur bayam joggé ci ndox ay mamati mamam yu jur bayam joggé ci ndox ñun ay nitu ndox lañ te bu déssé ci ñun kessé pour nawet bi taw wallahi dina taw ba ngeen inondé Ndakaaru fi di ngeen inondé ren di ngeen inondé

ndax boobu ba tey yéen a ngi jëfru comme ay dëmm yéen na ngi wax de gauche à droite lan la tempo tempo dal leen seen baay moo di kaat loolooy wax ci yéen dama ne ngeen dal seen baay moo di kaat xam nga nguur gu jeex moom lu ne xaj na si nguur gu jeex moom façon dof dof bu ne xaj na si nguur gu jeex moom façon fay bu ne xaj na si nguur gu jeex moom façon tappale bu ne xaj na si nguur gu jeex moom façon ñangar ñangare lu ne xaj na ci yen jeexal ngeen ce pays là sera dirigé inshallah 2024 par Ousmane Sonko waaw président xale waaw am ñi a doon xale mémoire xale di réfléchir comme xale i yor idée xale di ci code di lépp ci code évolution lañ laajte système bi par force. Nous, Vision ñun Sonko rek top. ñun on en a marre que des vieux gaillards ay magum jëmm di décider ñun suñu avenir ñun jeunesse bi notre avenir ñun ñoo koy jël en charge ñoo ko jël te ñoo koy tracer suñu bopp te ñun ñoo raxas Ousmane Sonko ba mu set ñu teg ku ko laal ñu defanteex yow ku ko tudd si ñaaw ñu defanteex yow ku ko wax naka su dul noonu ñu defanteex yow ku ko tilimal ñu defanteex yow ku ko saaga nag ñu yéeg sa kaw te duñ la wàcc te bés bu ñu yéegee seen kaw ñu xam ne yéeg nañ seen kaw dama ne ngeen réglé te nekk ay nit bañ a nekk ay mbaam xuux ndax nattu bi leen yàlla teg rek muy échec rek ñëpp gis ko doy na leen añax reer doy na leen kilo liibar patriote yi na dama bëgg ñu takku nag comme naanaa nañ takku ba mu dëgër te xam na nag yàlla ñun la àndal parce que yàlla ñun la bëgg yàlla ki ñu jiite ñun kooku la yàlla faale te kooku la yàlla bëgg muy Ousmane Sonko mii daf leen nànk ci Ousmane Sonko. def leen nànk ci Ousmane ndaxte xamoo leen kan mooy Ousmane Ousmane da ngeen jékki saa gis ko nii muy politique waaye racine bi tax ñu ne Ousmane boo leen xamoon racine boobu mooy ban racine wallahi wal azim barki Cheikhul Tidiane barki Bañas di ngeen def nànk ci Ousmane Sonko. ñàkk xam nag day waral lu bari ñàkk xam moo tax suñu maire yi jóge ba Casamance ñëw ba Dakar ñëw fii ngeen jàpp maire yi tëj.